wane ana sambay ka na ñëw wi ma fii sambay faal e sambay mbokk yi combat waa ngi noonu dox ci diggante 2 Giga ak Reum ndaanaan la moo mujjee daa ki xam ne mooy kon dégg nga Siteu 2 noonu Reum a ngi noonu Habib jox na ku nekk lan wala boog trois avertissement pour Reum teel naa bari di benn. Habib bi sifflé na deux ñoo ngi demee wet ñoom ñaar Reum tibb na suuf. Reum tibb na suuf deux Giga arñe na dem wuti ko. xeex bëree lu ma la waxoon rek combat bu gaaw la xeex bëree ñaari njool lañ deux Giga ak Reum. deux Giga nag moom ba mu fi mujj combat fils de balle Tapha Leer la bëree woon. mais maa ngi fàttali ko kan la daanoon jëlo bu ba rëm ba mu fiy mujj moog lasandeer la woon grand combat sëñ Modou Niang production moo ko tëggoon mu daan ko eh, rëma ngay soobu nag ma ngay soobu mais na moytu deux siga day dóor day pakate na moytu loolu bu baax baax ñaari njool lañ te deux siga daa bëgg a xeex tey deux cokaas na léegi dóor na dóoraat deux siga rëm a ngi de yoor ndànk-ndànk rek rëm waaw rëm loxom jógul deux siga dem na ñoo xeex la ilaha illallah deux dugubam dugub baaxul. deux Ziga dafa yooru. rëm sol na ko pala rëm. rëm daan na ko. doole doole. rëm daan na rëm da ko wëñ. waaw ko ko doole dafa feeñ. combat bi gaaw na. doole. rëm daan na ko. rëm daan na ko ba su dem. affaire bi ñu ne waaye moom na gars yi moom. war na sëñ Bamba dañ maa taxaw ay po yëmbal maa leen di ñaanal ñoom kaat yëmbal ñoom waxal ci combat bi ci combat bi lu ñuy gën a dem a si kanam ñuy xam kuy rëm mais abi dafa sifflé deux Giga dox sa kaw nga ni ku ko ma sax ba ñu ma ànd sax ba ñu ma ànd ñoo ngi naan maa conseil nee naa ma teey dañ maa conseil ne ma teey moo tax ma teey rek xam nga rek gis mu cokkaas la cokkaasaat la chaque jour nga fermer garde bi dox ci kawam. waaw champion la di ko encouragé naa ko mu jàpp làmb noonu la dañuy def émission ñëwal daal mooy motale rek. waaw maa ngi doom mbedd mi dafa mel ni dafa mel ni doole dafa xaw a feeñ sa diggante yow ak moom. man na man mooy loolu man damay man jamonoy corona ba léegi maa ngi entraîné woon na Serigne Bamba. kan moo ne sa moo loolu di ma seet suñu wax.